waaw bien merci. boulanger yi est-ce que war nañoo grève wala ñu grève yoon la wala du yoon. Euh, man amoon mon avis du yoon parce que mburu dafa bokk ci nit ci depuis longtemps mburu moom boo yeewoo lépp looy li nga jëkk xalaat mooy mburu même budul pour mag sax xale yi tamit dañ koy soxla donc laa man xoola fi ma quitté ba fii pour ñëw xool Brioche Dorée Nord Foire ci biir côté cimetière ba fële.

waaw yaa booy naka nga gisee li nga xamante ni mooy ñàkk mburu mi fan yi waaw dégg naa dañu ne mburu dafa ñàkk démb ba tey daal maa ngi dégg ñu naan mburu mi dafa ñàkk waaw waaye man de wax dëgg neex yàlla farine bi ñu wax dañ ko yokk man yéegaguma ko ndax man beñe laay jaay beñe dugub ak beñe farine moom laay jaay te li ma daan jëndee saaku moom laa koy jëndee ba tey ba démb moom laa bi ak mburu bi mburu bi man xam ma arrangé de ndax man xam nga beñe jar man ñàkk mburu man xéewal la ci man dem ba tey wax macha allah yëf yaa ngi dox daal macha allah wax dëgg neex yàlla waaw. li ma bëgg nag mooy boulangerie ñu liggéey na ñu liggéey rek waaw ñu liggéey daal parce que tam bu ñu liggéey la seen pertement la ñoom ndax benn fan bi ñuy tëj pertement la dañuy fay seen employé fay courant fay ndox lu mu cher cher cher nañu wekk lépp ci yàlla. ñun de ñu ngi toog fi dem ba tey maa ngi jaay te ñoom a gën ñu jox ñoom en gros la jëndee te ñun dañuy détail sant yàlla ñu ngi ciy jaay ñu ngi liggéey ñu ngi jot suñu wërsëg loo xam ci Allo Dakar TV. Allo Dakar TV je suis naa ci ñoom wax dëgg neex yàlla télé bu ma neex la dama koy seetaan samay waa dañ koy surtout sama sët bi nag moom la gën a bëgg. Eric euh, euh, Emmanuel Carvalho waa kii si brioche dorée waaw waaw c'est normal parce que bon farine bi nu muy yéeg di wàcc rek moom inconvénient bi parce que farine boo xam ne dafa doon nekk 14000 000 yéeg ba 18000 à 19000 loolu aussi ñiy créer ñu investir si boulangerie duñ ci mën a am bénéfice quoi donc il fallait que nous def ni pour nous puissions a le prix sinon le prix est moom buy yëg rek day mettre ici ci askan bi parce que si nous les boulangers vont augmenter le prix du pain et jamono vont pour jaay kilo à 200 francs donc euh, je vois que c'est normal malgré ils ont essayé pour que euh, les autorités Nous mun voir, mais bon ba les amul entente il fallait ñu def un geste comme ça nous gën prêter attention Nous euh, ñu nous pénaliser les Sénégalais parce que bon. Moi, j'ai écouté le président des boulangers du Sénégal, Amadou Gueye, mais bon, il a été clair parce que plusieurs fois, euh, pour, euh, pour rencontrer les autorités, mais ils ont négligé. Mais en ce temps-là, c'était des périodes des, élections. Mais je crois, d'après les modèles d'information, avec la nouvelle ministre euh, du Commerce, Waouh mais je crois que un terrain d'entente mais je le président Macky Sall moom la train de vie surtout les premières nécessités moom da ci gëna faralu xamna xam waxtaan bi waxtaan bo gis du ben jour lay soti quoi mais dina jël temps mais ils vont s'entendre te gars nañu wañi farine bi loolu rek moo tax ñu yok mais yàkkuñu ko pour faire mal aux Sénégalais mais aussi ñun tam ñu yok pain bi mu metti ci ñun parce que ñu mi liggéey ci boulangerie ça, on achète du pain pour nos familles donc yokkute bi ñëpp koy yëg waaw donc euh, c'est juste ça mais je crois que dina